asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi amaan nañ mbég ci toogaat ci jataay boo xamante ni bii ndigalul sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa la ñu toog ak sëriñ Mamor Mbacke moom Cheikh Mahamadul Fadal mi nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu daaray alquran yi ci loxoom la ko Cheikh Mahamadul Muntaxa teg mu feggoo ak sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdoulatif ñu fas yéenee yëkkati ay kàddu yoo xam ne ndigal la lu bàyyi ko ci sëriñ bi jëm si ci mboolem murit yëpp waaye rawatina jëm si itam ci mboolem jullit yëpp jëm si ci dem mbooleem koo xamante ne bii bëgg nga lu baax kon ñun ñëpp dañuy maas déglu kàddu yi nga xam ne moo tukkee ci Cheikh Mahamadul Muntaxa jëm si ci taalibe yi. fas yéene jotal ay kaddu yu gàtt yu bàyyi ci ku tedd ki Cheikh jëm ci mboolem taalibe yi waaye jëm ci mboolem jullit yi kàddu yu mel ni yam daan sàkku rek ci waxtu wu mel nii bu tartar amee wala ay coono am mu xam ni Sëriñ Tuubaa ñaari ñaari delluwaayam yooyu mu daan delloo rek ci lañu war a delluwaat toroxluwaat jëm ci yàlla tuub dellu ci ñaar yi nga xam ne ci la sëriñ bi daan dellu ñaka jekk muy jàng alxuraan ak xasaayit ngir yii xew ci jamono ji mu wax ni nag bala ñoo wax niñ koy jànge dafa wax ni képp kuy jàng alxuraan ji na nga ca fas na nga ca fas lii sant yàlla santal Serigne Touba yàlla santale Serigne Touba yàlla Serigne Touba mi nga xam ni moom moo wax ni lii dawa dawaama sukri lil jinaani bir rooxi wal jasadi wal janaani sun borom maa ngi la ñaan nga may ma ma saxoo laa sant ba àjjana waaye ci sama mboolem li aju ci man nag muy sama ruux muy sama yaram muy sama xol saxoo cant googu Sëriñ Tuubaa ñaan boromam moo war la mu ni njàng mi nañ ko def muy njàngum cant sant la Sëriñ Tuubaa yàlla sant moom ci boppam mit ñu santale ko Serigne Touba ñu ànd ñun ñëpp santale ko Serigne Touba ndax suñu borom ci bopp moo moo moo xamle ni képp ku ma jox xéewal war nga maa sant waaye nag war ngaa sant ki ma jaarale xéewal ga ci moom te sëriñ bi nee na xéewal yi ñu am yëpp yu nu yàlla jox xéewal ga ci yi ci gën a bari la ci la ci gën a am maanaa ci ñun mooy Serigne Touba mi nu xéewale kon nan ko santalee sëriñ Touba. ànd ko sant sa ko ko sëriñ bi dellu wax ci ni sukkooriya fi daarey ni lillaahi wahdahu alaaman bii abqa fuaadi wa jismaani sama cant gi may sant yàlla ci àdduna ak àllaaxira day dem àdduna ak àllaaxira waaye maa ngi koy sant lu tax ma di ko sant maa ngi koy sant ci yonent bi yonent bi nga xam ni moom ci darajaam ci li ma suñu borom maye sama xol sax ci taw tawhid wéetal yàlla sax ci bëgg yonent bi ak liggéeyal ko sant googu nga xam ne ci darajaam suñu yonent boobu nga xam ne ci darajaam ci la suñu borom maye sama yaram dara du ci sikk àdduna ak àllaaxira kon mu mel ni bayit rek moo tax sëriñ bi samp lépp ci sant yàlla ak sant sëriñ Tuuba nee na buñ ku koy jàng nang nga ca fas sant la yàlla sëriñ Tuuba santale Serigne Touba yàlla santle moom ci boppam ñu santale ko Serigne Touba mi nga xam ni xéewal yi ñu suñu borom defal yëpp ci moom la ko jaare moo wax ni nag njàng mi njàngum alxuraan la ak xasaayit waaye dafa bëgg kenn ku nekk fa nga nekk nga teewlu fa jàng fa ab kaamil yow képp soo ko mënee soo ko mënul nga seet ñu la ci dimbali ci sa biir kër ñu jàng ko fa boo noppee loo ci mën a teg ci xasaayit nga teg ko ca soo noppee nga def ko addee Serigne Touba ñaan suñ boroom mbir mi nga xam ne moo xew ci àdduna si te ñëpp am ci njàqare suñu borom teggil nu ko waaye ñaanal ko moom ci boppam ñaanal ko mboolem ta njabootu Serigne Touba ñaanal mboolem taalibe yi ñaanal mboolem jullit yi ñaanal mboolem kilifa yi diine ñaanal àdduna sépp ndax Serigne Touba àdduna sépp la ëmbal yërmande te moom la fi nekkal. nañ ko nañ ci góorgóorlu su ko defee kenn ku nekk boo ko defee sa kër ga nga nekk kër ga mën naa aaru njaboot ga mën nañoo aaru te barkeb alxuraan ak xasaayit mën na lépp buñ ci jógee képp koo xam ne def nga ko ci sa kër ba noppi nga def li ñuy wax itaam togg togg ay ñam séddale ko ña la gën a jege mu bañ a nga xam daal mbooloo jëruñu ñuy sàkku fenn mbooloo nag dafa wax ni rek kenn ku nekk na ko defee biir këram kër ga bu ko ñëpp mënee def kenn ku ne baax na bu ko kenn ñëpp mënte nañ fexe ba kër ga moom ab kaamil wàcc fa moo xam boroom kër gaa ko jàng moo xam da ko ànd ko njabootam moo xam dafa neexal nit mu ñëw jàngal ko mu neexal ko waaye noonu la ko sëriñ bi bëggee woon euh, ñun nun nag nañ nañ nañuy xam rek li li sëñ bi bëggal taalibe yi bëggal ko lislaam bëggal ko àdduna sépp mooy jàmm rek jàmm jàmm rek la lañu la bëggal mm-hmm. kon nañ ci góor góor lu baax a baax farlu ci bu baax a baax a baax te xam ni sëriñ Touba day mosu fee jóg te du fi jóg nu raxasaat pësteef yi raxasaat xol yi feddliwaat pësteef yi fas yéene fas yéene benn baat bi nga xam ni moom na sëriñ Touba am naka jekk te benn baat boobu du fi jóg mukk ñu fexe ba nun murit yi lépp lu koy dind ci noonu nu gar ci suñu tàngub tubéy xam ni benn baat mooy dox ci yoonu murit faw moo fi dox te féeg benn baat baa ngi fiy dox lu sëriñ bi bëgg ci noonu dana ko am kon nag nan góor góorlu xool ci moom ñu jàkk ci moom loolu lay sëriñ boole woon ci sifaatu saadixil murid muy tarkul intiraat ñu fonk ko baax a baax a baax ak fu ndigal jote jóge fa saasa ñu jëfe ñu jëfe ko fa saasa ak yokk suñu cafeel ci bëgg sëriñ Touba ak baña am benn tànn lu ñuy tànnal suñu bopp wala ñu di ko tànnal tànnal te tem nekk fi moom kon nañ ko bàyyee suñu lépp noonu daal kàddu yi la suñ waxoon nañ ko nañ nañ ko jottali ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñor na ko nag lool njàngam alxuraan bi ñaari fan yi alxames ji ak ajjuma ji nañ fexe ba mu bañ koo génn bu mu a génn alxames ji ak ajjuma ji ku man suba nga def ko ko a fii suba ginnaaw suba noo noo ko mën a jànge boo jàng ci biir kër ñëpp teewee ko sa sa njaboot teewee ko muy njàng mu sell mu jub muy alxuraan muy xasaayit fas ca nag jàmmi Sénégal jàmmi jullit yi jàmmi taalibe yi jàmmi àdduna sépp te sëriñ bi am na yaakaar ju wér ci ni buñ ko defee lépp luñ ci sàkku suñu borom daan ko may ndax sant moom mooy lépp ndax moo jëkk moo mujj ndax ku jaan ba noppi sax da nga naan wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin kon nag sëriñ bi nee na sant moo jëkk moo mujj nañ ko nañ ko def njàngum cant njàngum njàngum njàngum ñaan ñaan buñ ko defee liñ bëgg lépp danañ ko am nam koy xool nag dott naa ci waxe ko noonu waaye nag ku dégg waxe suñ moom da nga xam ne moom pëstéefam mooy rek noo jariñu àdduna jariñu àllaaxira ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégalu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf mbokk yi ñoo jot a déggandoo kàddu yi muy kàddu yu ndigal di kàddu yu sant alxuraan ji dafa mel ne ci wàllu tubaab li ñuy wax état d'urgence la sëriñ Muntaxa jël mooy nañu daal di delluwaat ci borom bi subhaanahu wa taala na mu gën a gaawee te def ko muy suba ci alxemes ji ak ginnaaw suba ci ajuma ji loolu nag kaamili alquran la wax ne nañ ko jàng ca kër ya kër boroom kër bu ne fas yéene wàcce kaamilub alxuraan moo ko njabootam ku ko mënul nga woo ko la ko wàcceel nga neexal ko la nga ko war a neexalee ñu boole ci njàngum xaside waaye kaamil bi Serigne Mountakha nee na nañ ci jublu fas ci sant la Serigne Touba boromam subhanahu wa taala mi mu doon liggéeyal ba mu gërëm ko te tëbb ko kàttan bu ñu santalee sëriñ tubaa boromam ba noppi ñu wëlbatiku moom sëñ muntaxaa ñu santale ko sëñ tubaa moom mi nga xam ne xiiwal gunu am mu moo ñu ko jëleel ci borom bi subhaanahu wa taala jaarale ko ci ay loxoom jox nu ko ñu defee loola rafet na njort lool ci ne mbooleem lu ñu bëgg danañ ko am ñam yi itam sëriñ bi wax ne nañu togg ay ñam te daal di koy séddale ci kër ya gën a jege te togg ga jërut ñuy dajale mbooloo suñu defee loolu daal rafet na njortu ci ne jàmm ji nga xamante ni bi moom la àdduna bëgg sunu borom dana wàcce jàmm ci àdduna bi jaarale ko ci barkeb Serigne Touba mu jaar ci Sénégal jaar ci Afrique tisaaroo ci àdduna bépp bañ xam ne liñ doon tiit sunu borom dàq na ko kon nag bokk yi ndigal laa ngi noonu suba ci alxemes ji a ginnaaw suba ci ajuma ji la sëñ Muntaxa woote état d'urgence ñu delluwaat ci borom bi subhanahu wa taala tuubal ko jàng alxuraan def jublu ci sant sëñ Touba sant la sëñ Touba yàlla waaye sant la sëñ Muntaxa sëriñ Touba kon ndigal laa noonu la ak xasida ak bernde wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.